nag mosuma sonal ci dara bañkat la nag moom moom moom ah bañkat la de. xam nga moo nee bañkat nga am kii mais am fulla ak fayda ci boppam am fulla ak fayda ci boppam daanu turandoom nag sam papa moom bañkat la de kenn du ko yab. Mhm. loo ko nar a rek mu dindi teg fee loolu moom jikkoom la. mooy sama turandoo papa waaye dañuy xuloo rek rek. <laughs> football bi yàgg na koo bëgg du tey football bi yàgg na koo bëgg ndax moom da doon jàng doon jàng ba mu kiyee ndeysaan mu ne ma yaay baal ma football rek bàyyi ma football yi ma ne ko ah Habib tey ngaa kii rek mu ne ma déedéet baal ma football rek yaay fekk xam nga rek yàlla xam rek doy na waaw xam nga xale moom bu fekkee màgg na ci am na ci yoo xamante ne day day day kii day xool. de xale boo xamante ne nag xale bu am xel la day daal di kii léegi nag mu ne bàyyi rek ma football yaay. léegi maa ngi jéem a seetaan mënuma ko woon de ne léegi maa ngi xaw a def nii mu ma defee nii ba yàgg daal di def nii ndax xam nga rek football dafa metti yenn saa ñu mbëkk leen ñu périer dem ba fële ndeysaan ma ne xoolal rek xam nga ni lii metti na ah xam nga rek <laughs> xam nga rek waajur ak doomam rek il loolu am ci ndeysaan parce que xolu njuree la tax. xaritam yeeg dégg nga ñëpp daal waa koñ beeg ñépp ñëpp kër gi rek ñëpp ne ñëpp ñëpp kumbu rek yii ba mu dugalee bii moom kontaan rek di dolli sant yàlla rek ba bëggoon mu dolli dolliwaat ko war ki yonent bi kontaan rek li ma koy ñaanal kay ca kaw ca kanam rek li mu bëgg ci ak carrière am yal na ko ko yàlla defal yalla sam ko taxawu ko taxawu ay moromam fu mu bëgg ag mok ay moroomam yalla na fa àgg ci kartanu borom ku na dimbali sa bop dimbali say wajur parce que xalé yi seeni wajur do nga tax ñu sonu seeni wajur ñom liñ ci lek lu ndaw la seeni wajur do nga tax ñu sonu yal na leen yalla taxawu may ñaan nak yalla may ko muy duggal ay bi ay bi bi ba yalla may ko ballon d'or ci borom bi Yes. Bonjour, euh, man la Habib Diallo, joueur de Metz euh, et joueur d'équipe nationale aussi. Je vous salue. <laughs> Habib Magalef. Maï Ferek. Mon nañu wax ni c'est ma première fois moi jouer Ligue 1. Année bañu monter Ligue 1 la première fois que j'étais à Metz. Mhm. année boobu monté nañ Ligue 1 ma amoon ma joué 17 euh, matchs euh, qu'il a marqué 9 buts. Après, il a joué joué en Ligue 1, mais remplaçant là, on jouait tout le temps. Après qu'il a dem en prêt, Brest, joué Fognou. Après, me retourne à Brest. une saison et demie, je suis à Brest. Après, qu'il a Metz Waké, qu'il a revenu Metz encore. Nous y Ligue 1. Après, coach, euh, je suis confiance avec l'épreuve nga boy joué ci équipe te amoo confiance ci équipe bi doo mën a avancé ci lañ yéegee Ligue 1 après ñu garder boo dee xool même groupe bi lañ garder dañoo jël dolli ci quelques éléments pour mën a former waat benn équipe Ligue 1 bu baax et saison passée yàlla def ma def saison bu baax et cette année maa ngi naan du ma ne saison bu baax la mais ñu ngi ci yoon bi daal. gis nga boo nekkee ci benn équipe nekk fa ak jeunes yoo xamante ni ñoom yow li nga bëgg ñoom tamit dañ koo bëgg mais ak coach bi jox la confiance loolu pour nga réussir euh, ci lu bari day yomb te man boo dee xool man ma nekk ci kaw man maa ëppaleegum bi suñu équipe mais am na ñeneen ñu fa nekk tamit ñu ngi dugal yàlla daa def man ma ëpp lu ma leen dugal rek mais j'espère que ñoom tamit dinañ ñëw. waaw attaquant loolu la moom. attaquant bo dul dugal kenn du lo xol lolu mom loloy fubal mom bo doone attaquant même bo xamul dara dara bo dul dugal mom kenn du lo xol wa mën nañu wax confiance day feeñ xam nga am nañu xam dañuy sol brassard pour ñom brassard lu ki la quoi ñom dañ koy tak di ko diko di mais man jour ba ma coach bi laaje ne ma brassard man ko brassard man dama ko tak ni rek mais. même ba ma football tamit sans brassard bi la def lay def rek Maniko ne ko man xamna lima war ak luma kiwul mom moy lolu comme que premier capitaine bi mom quasiment mom 12 juillet léegi coach bi man même jour ba ma ko contre saint Etienne maa ngi souvenir sax daf mako jox ma sigi xol ko ni sax mu y'a quoi Maniko non rien ma non parce que je te fais confiance c'est pour ça que je te le donne je dis ok L'équipe du bëri day faral ay capitaine bi mooy ñëw wax di wane ni mom moy leader ak yoy man yoruma statut bo xamné ay comme nit ñoo xamné dañuy ñëmé nek ci kanam di diriger ak yooyu man non j'aime pas bo dee xol man brassard takk na ko mais pour ma ñëw wax ak sama gaay non non damay xol ku ci gëna mag ci groupe yëpp bo dee xol des fois John Boy mo gëna mag dama naan ko John waxal ndax j'aime pas être devant tout le temps pour diriger voilà man na def sama liggéey après le reste. Euh, <laughs> loolu moom xamoon naa ndax euh, coach bi boo dee xool juste après match dernier match bi Ligue 2 bañ donné champion coach bi premier coach euh, Antonetti mom daf ma wo ñu waxtaan lu yagg mu xamal ma ne voilà fek amon na yenen contact yo xamné pour quitter Metz ak yoy man ma xol né voilà ma tok Metz confirmé moo gën may dem fenen diko ko confirmé feneen mais bu mako ko confirmé Metz après voilà dem xoli lenen ci lay gëna yombé mais xam nga monter rek dem pour confirmer après ci benen équipe day xawa day xawa metti mais équipe ba nga yéga bo confirmer voilà après bo dem séti séti pour le moment mais rumeur yu xam nga rek Sénégal mom ak du Sénégal mais da dañuy dara rek mais agent na la wax mais loolu c'est normal maag sama agent dinañu waxtaan daf may wo presque tout le temps ñuy waxtaan Amna yu bari yo xam buma koy def sax man dama koy woo wax ko ne ko lii ak lii mu ne ma ok dafa lii mais amna na kiiwu transfert yu bari moy deg même man dama koy deg damay dama koy gis ni sax mais damay ree des fois c'est des rumeurs et pour le moment ma ngi mees waaw xam nga rek non je vais continuer à Metz parce que boo le xool début saison bi prolongé naa

boo dee xool xam nga caractère coach yu jaar Metz caractère bokkul comme coach yu fi jot a jaar ba ñuy yéeg di wàcc ak yooyu ak coach bi nekkoon moom malheureusement jabaram xam nga xam nga rek mooy loolu dafa am ay problème familial looloo tax Antonetti mais après voilà mais ñu ngi déggante ak moom tout le temps beneen coach bi la fi bàyyi muy Vincent mu ngi def liggéeyam après ñun

boo yëkkatee boo yëkkatee sa niveau ñeneen yëkkatiwuñ sa niveau tamit sa niveau du mës feeñ ñeneen dañuy mel dañ lay nëbbu quoi yow yaa nekk ci digg bi pour nga feeñ problème la moo tax ma ne boo demee ci club bu mag ci obligé. Ah, waaw mais man ñaanuma yàlla toog mes tout le temps tout le temps damaa ñaan yàlla dem xooli leneen xam nga rek boo doonee jour dangaa war a xool fu nekk xool mais bu ñaan yàlla toog ci benn place quoi. wa boo dee xool moom poste yi boo dee xool attaquant moo ci gën a metti yow la ñuy mbëkk yow la ñuy gaañ yow la ñuy yow la lu bëri yow lañ koy laaj quoi boo dugalul boo équipe bi gañewul kan la ñuy wax attaquant boo dugalul football moom mo mooy loolu dafa doy waar tout le temps attaquant bi wala coach ba <laughs> wala défenseur ba duñ mës a wax militaire <laughs> mais man moom samay qualité je sais pas bi na dougal rek nu mu mënti mel man baxna man mom comme ay lii laa dugal man non bal bi nu mu ñëwee nu ma ko dugalee le reste je sais pas na ma nit ñi wax mais man mom <laughs> je sais pas j'aime pas man mom xawma mais nit ñi voilà man li nekk ci man makoy wax non. Oui, je pense que garder plus de ballons, je pense.

damay préféré dem. Mhm. mu gën ma toog fii quoi. ndax respecté woo leen ma. Mhm. ñu ne ma ok après ci lañ waxtaan noonu ñu ne ma non dangay toog finalement xam nga voilà xam nga faire confiance ci lañ jëlee beneen coach bi Anthony li xam moom yàgg na ci football xam na zo xam na ni. Mhm. ci lañ waxtaan mu ne ma non moom daf ma soxla laa toog.